أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين لق لساني واحللا منه العقد واجعله شاكرا وذاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal di bëgga dikkaat ak yéen rek di ànd ak yéen ci bind yi nga xam ne moom la ñu baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu ne di ko toxale ci mbindam sëriñ bi radiallahu anhu tànnoon ci téere bi nga xam ne moo di nahju qadaa'il xaaj te ñu àndoon ci ak yéen ci ay bind tey bind yooyu moom la ñu bëgg a wéyal ba tey ñi ngi taxawoon keroog fi nga xam ne fi lañu sëriñ bi doon moytandikoloo li nga xam ne mooy fuqale wala xër ci aw ñam ak jël sa yitte yépp sa aajo yépp wékk ko ci li nga xam ne mooy pay di wàllu jaxasoo góor ak jigéen foofu lañu taxawoon tey ñuy woyal ba tey rek nga xam ne loolu nga xam ne moom la waxoon ci bëy di weesu moom lay saraa doo ko continuer mu ne yaan ni li mu jublu anna min al adabi naka bokk na ci ay teggiin adamu sharahi ñàkka fuqale maanaam bañ a fuqale ila taami jëm ci aw ñam wa adamu taaliqi ak ñàkka wékk wala ñàkka aj alhimmata yitte ja bihi ca ñam wa na fa inna zalika naka loolu day mina dana ati bokk na ci ak suufe wa mujibatil mazimmati bokk na it ci waral ay bàkkaar bokk na ci waral yeddaange bokk na ci waral li tax nit ki ñu koy yedd ne na li mu jublu ci li mu wax ci bëy di nga xam ne moo weesu mooy mi ngi lay ñaax di la dénk di la digal nga bañ a tiit bañ a foqale ci li nga xam ne moo di ak lekk waaye bañ a jël sa yitte yépp wékku ko ci ak lekk rek ndax ne na loolu day waral day waral ak suufe waaye it day tax nit ki ñu koy yedd fu mu toll day tax nit ki di def lu ñu koy yedde ngir li nga xam ne moo aju ci foqale ci aw ñam dafa bari ndax mën naa yóbbe nit ki mu fër mën naa yóbbe nit ki mu lekk ba dootu tala jaamu yàlla ndax dañuy wax ne biir saa bu feesee nit ki day tàyyeel lépp loo xam ne moo di jaamu yàlla da koy tàyyeel a joxe kon nit ki su bañee suñu borom bi subhaanahu wa taala di ko yedd wala muy def loo xam ne nit ñi dañ ko ci yedd na moytandiku bu baax li nga xam ne mooy fuqale waaye nag moytandiku bu baax li nga xam ne mooy tiit ci aw ñam ngir ne loolu luy waral luñ koy yedde rek moom la koy jural kama xaala ni ki mu waxee ash-shaa'iru waykat ba na waykat ba dafa waxoon ne wa innaka naka yow mahma tonti foofi joxe bat naka sa biir su lahu la muy laaj wa farjaka ak sam pay naa laa kon ñu am ñoom ñaar muntaha zammi daytalub ngañ ajmaa mboole seen ne na saa boo fi xamee ne day sa biir jox nga ko la nga xam ne moom la lay laaj maanaam lu biir bi laaj rek nga jox ko ko doo ko xiifal mukk biir bi daal du xiif mukk lu mu laaj nga jox ko ko lu romb nga jënd def ci biir lu sa pay laaj ci jaxasoo ak jigéen nga jox ko ko ne na na nga xam ne loolu de saa boo ko defee yow yaa ngi am daytalu ŋàññi téef maanaam lay tax ñu lay ŋàññi yow yaa ngi ca daytal ba ñaar yooyu mooy li nga xam ne moo dajale lépp loo xam ne mooy jural nit ki ay mbonteef ngir ne nit ki saa bu bët bu biiram feesee bànneexu bakkanam rek lay topp waaye lenn lu dul jaamu yàlla dootu ko dootu ko soxal waaye it li nga xam ne moom la ko ab xolam di laaj am xolam di ko laaj rek moom lay jóg di ko def kon moom la sëriñ bi di wax radiyallahu anhu ci masalikul jinaan ne wa kullu man képp ka nga xam ne am la a feesal na batmahu biiram taam ci aw ñam wa ak charate mu baril assurba naan nga alayhi ca moom wal manaam ak nelaw ya ne dafa innahu naka kooku maal bahi istawa yemoona maal bahimati ak bayima is ngir faatahu faat na ko xayrun aw yiw kasirun bu bari fatawaate mu alku ne képp koo xam ne day suñu borom bi subhanahu wa taala dogal na nga jàpp sa biir bi di ko feesal aku ñam dell jël am ndox yëpp ko ci bam fees dell xelaatoo jaamu yàlla xelaatoo dara nee na kooku mook bàyyi ma dëgg ñoom ñoo yem mook bàyyi ma dëgg ñoo yem ngir lan moo tax mook bàyyi ma ñoo yem ngir ne loolu nga xam ne moom la def lim koy jural moo di ak tayyeel daf koy jural ñàkk jaamu yàlla su ko defee yiwu bëree bëri daal di koy faat lenn du ko mën a def lu dul ne lu ko saytaane digal rek maanaam ci loolu la koy xiir ngir ne la ko saytaane digal mooy ay nelaw toog tayyeel yooyu yëpp la koy jural te bu boobaa loolu lam koy la la ko yóbbee lenn rek la mooy biir ba nga xam ne moom la jàpp biir ko aw ñam ba mu fees dell mu jël ak naan def ko ca ba nga xam ne daanaka sax du mën a noyyi ngir ne biir dafa am barab yoo xam ne barab barab boo xam ne pour aw ñam la am barab boo xam ne pour ak naan la am barab boo xam ne pour noyyi la su fekkee ne nag da ngaa jël ñetti barab yooyu nga xam ne moom lañ ko xaajalee noonu nga jël barab yëpp def ko mu di aw ñam aku aku aku aku naan bu boobaa fa nga xam ne fa nga war a noyyee day tëju bu boobaa loolu mooy lay yóbbe noyyi bu métti boo xam ne daanaka mën na laa jural loraange kon nit ki lu mu gën a moytandiku li nga xam ne mooy ji feesal biiram di ko duy ba mu fees wala muy jël ak naan di ko naan ba tàyyeel dikkal ko loolu lépp nit ki war na ko moytandiku ndax dafa bokkut ci ay teggiin kon nit ki war na ko moytandiku bu baax a baax ngir ne suur ci aw ci lu dagan sax dafa ëpp waxuma laa nag ngay jëfandikoo leneen loo xam ne maanaam yeddaa ngi daf caa nekk maanaam loo xam ne daganut wala yu demee noonu nga koy jëfandikoo yooyu moom waxaale wuñu ko kon lii ñuy wax lépp nit ki mi ngi koy jëfandikoo ci loo xam ne fàggu na ko ba mu dagan bu fekkee ne loolu la koy yóbbee nag waxatuñu loo xam ne daganut muy continuer ba tey mu ne watu bit na nga takk yaddaka sab loxo laa taksir wala laa tuksir bul bari abadan faw lahwan ay caaxaan bihaa ca moom fa innahu naka lool de aybun ayib la badaa jot feeñ na wala tunaawil bul yootu abadan mukk maa la nga xam ne lam yaxuz làqut faidatan jariñ bihaa ca sa loxo boobee tafus kon da nga tuufu bi taqribin ci ak jege suñu borom bi subhanahu wa taala ne na na nga téye sab loxo bul ci baril ay caaxaan mukk sab loxo bu ko jël di ci def ay caaxaan wala nga ciy def ay fo loo xam ne mënulaa indil benn njariñ loo xam ne amul la benn solo nga jël ko nga jël sab loxo di ko ca def ne na na nga ko moytandiku bu baax a baax lu ki mel ni tey jii nga doon ñaanlu nit ñëw ci yow di la liggéeyloo koo xam ne defu ko dara wala koo xam ne dafa nekk ci barab nit ñëw bëgg ko faa jële te tegu ko ci yoon ñëw di la ñaan loo nga jël sab loxo di ca bind ngir jële fa kooke yooyu yëpp def lu bon la def la loo xam ne njariñ nekku ca kon mën nañ koo moytandiku bu baax a baax lépp loo xam ne day jural nit ki ayib rek war na koo moytandiku ci fànn gu ne waaye noonu la war a tàkke ab loxoom ba du jëm ci lenn loo xam ne la suñu borom bi subhanahu wa taala di teral moo tax mu ne yaan yi li mu jublu ci li mu la anna min al adabi naka bokk na ci ay teggiin dabtul yaddi mooy takk sab loxo tée sab loxo wa tark taksiiril abasi ak bàyyi baril ay caaxaan bàyyi baril am po bihaa ci say loxo wa tarka tanaawulin ak bàyyi jottandiku wala bàyyi yóotu maa la nga xam ne laa faidata déet njariñ fii di ca nekk bi ca loxo boobee na fa innahu naka lool day yuaabu day ayibal day ayibal ala zawil axlaami ca boroom xel ya wa haza te loolu mimma bokk na ca la nga xam ne am mat matale na bihi ca moom al balwa balaaya nee na kon na nga fexey ba jëfandikoo teggin yi mën a téye sab loxo na nga fexey ba jëfandikoo teggin yi bañ a baril am po ci sab loxo waaye lépp loo xam ne moo lay jural bàkkaar na nga fexey ba bul ko def ci sab loxo ngir ne loolu bokkut ci ay teggin waaye loraange ak alkene rek lay jural borom kon lépp loo xam ne amul njariñ nit ki na moytandiku di ko jëfandikoo ci ab loxoom kon bu la te bu la teree loolu lam la digle lam la digal mooy na nga fexey di jëfandikoo ci sab loxo loo xam ne dina la andil dana la andil njariñ li ki mel ni lan li ki mel ni tey nga tegoon sa kaamilub alquran di ko ubbeeg say loxo di ko jàng wala nga yoroon say xasida di ko tijjeeg say loxo di ko jàng lu mel noonu wala ngay bind alquran wala loo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daganal na ko wala ngay bind xam-xam boo xam ne dafa jëm ci nit ñi man leen a jariñ man leen a yee yu demee noonu moo bokk ci moom lañ lim ci ay teggiin yoo xam ne nit ki war na koy jëfandikoo ci ab loxoom ngir ne loolu li mu koy andil mooy da koy andil njariñ waaye njariñ loolu du yem ci moom dong waaye day dem ba ci mbindeef yi yépp mu ne nag wa in sami'ta foo fi déggee man ka nga xam ne yakunu dana nekk ak baraa di gën a mage min ka ci yow yu xaawilu muy sàkku zamanan ci jenn jamono wataran aajo ka an yaruma ni ke mu sàkku mursalan ndaw li xaajatin ci aajo faq di na nga faj lahoo ñeel ko lillahi ngir yàlla tilkal xaaja joojale aajo ne na saa boo fi déggee koo xam ne de moo la ëppi at di sàkku maanaam am soxla soo xam ne day sàkku koo xam ne moo ko koy fajal da am soxla di sàkk ku ko fa ku ko fajal nga man dara ca soxla sax ni na bu boobaa na nga ko fajal soxla soosee comme na nga xam ne noonu la ko bëgge mu jox la ci misaal ne mu mel ni nga toogoon ak mag mu soxla ku mu yónni boobaa na nga jug doxali ko yónneet boobee ngir jëmmi yàlla rek tax lu ki mel ni nga toogoon ak mag mu soxla ci sa wërsëg dara nga xam ne lii mën nga ko te mën nga koo defal na nga ko defal te jëmmi yàlla rek tax waaye bul ci xool dara kon loolu dafa bokk ci ay teggin nga toog ak ma gis mu soxla loo xam ne yow mii de leer na la ne yaa ko ëpp kàttan te mën nga koo defal lool te du la wàññi dara bu boobaa nee na na nga ko defal na nga ko fajal aajo jooju te suñu borom bi subhanahu wa taala rek tax bul ko def ngir puuka rek bu dee alal nga ko defee bu ko def ngir puukare bu dee kàttan nga ko defee bul ko def ngir puukare ngir ne suñ borom bi subhanahu wa taala moom mi la ko jox mënan na la koo xañ jox ko ko moom min ko xañ moo tax mu ne wala yarumu wala yarumu bum sàkku min ka ci yow arimu kenn la yaadan dara illa fa'altahu ndare nga defal ko ko bi zaaka ne na ci loolee de tukkuramu ca lañ lay terale nee na bu kenn sàkku ci yow dara loo xam ne man nga koo defal nga bañ ko koo defal nee na képp koo xam ne sàkku na ci yow dara loo xam ne man nga koo defal nee na nang ko ko defal ngir ne ci loolee ci lañ lay terale nit ki su fekkee ne dafa wormaal ñi nga xam ne ñoo ko féete mat jox leen cër bi mu leen war a jox nee na ñooñu dañ koy wormaal waaye ñi nga xam ne ñoo ko féete ak ndaw it dañ koy wormaal kon saa boo wormaale nit ñi teral leen ñoom it ñu wormaal la teral la comme ni nga xam ne noonu nga leen noonu nga leen warmaale teral leen nooru kon bul gis kenn di sàkku jenn aajo joo xam ne mën nga koo fajal te fajaloo ko mu ne nag wala taxul bul wax li ahadin ñeel kenn kasdabta wax nga lu du dëgg aw xulta wala wax nga xayral xaqi lu du dëgg aw axtata wala juum nga ñana bul wax kenn ne ko wax nga lu du dëgg wala bul wax kenn ne ko juum nga bul wax kenn ne ko li nga wax di du dëgg wala juum nga nee na bul ko wax kenn aw xayruha aw xayruha wala yu nuroog yooyu min kulli shay'in ci lépp loo lu man di doon loo xam ne yusqitu dana ko merloo walaw kaana doonte dafa nekk sabiyan di ab xale fa huwa loolu xalatum njuumte la nee na bul wax kenn ne ko fen nga bul wax kenn ne ko juum nga nee na doonte ne ab xale la bul ko wax ne ko fen nga wala juum nga waaye bul wax genn sax genn kàddu goo xam ne moom bu ko déggee rek daf koy naqari bu ko déggee daf koy naqari mi na bul ko wax kenn ndax ndax loolu bokkut ci ay teggin kon su fekkee ne nit ki dafa wax ak yow ci loo xam ne xamoo ko na nga fexey dogal ko ngant na nga fexey waxtaan ak moom waaye bul ko wax mukk ne ko fen nga wala wax nga lu dëgg yooyu nañ koy moytandiku bu baax ngir ne dafa bokkut ci ay teggin wax ko koo xam ne moo la féete ak ndaw sax bokkut ci teggin waxuma la wax ko koo xam ne yéen a maase wala mu féete la ak mag ne wa in takallama ndeem wax na bi maa ca la nga xam ne lam taalami xamoo ko fa fiihi fa saddiqu na nga ko dëggal fiihi ca moom takkun da nga nekk za karamin boroomu teraanga fa xul ne na na nga wax lahu ñeel ko lastu kaza jàppew ma woon nii aw kuntu wala dama nekkoon moo taqi dan di aji fas aw inna nii wala mankat jahiltu dama réere woon mbir mi wa naxu hada ak yu mel noonu min ibaratin ci ay baat yoo xam ne tasur dana ko bégloo mustaxsinaatin yuy aji rafet yoo xam ne laa tusi du naqaral wala ta duru te du ko lor nee na su fekkee ne nit yi dafa wax ak yow loo xam ne xamoo ko nee na nang ko ko dëggalal rek yow daal dëggalal ko ko bu fekkee ne yow li muy xamoo ci dara dëggalal ko ko jàppal ne la mu wax moo am wala bu fekkee ne dem nga ba jàpp ne li mu wax sax amut nang ko wax ne ko ah man de damaa jàppal ne nii la demee wala man de ah yaakaaroon naa de nii la demee wala man kat damaa réeré woon mbir mi waaye nii laa ko jàppee waaye bul ko wax mukk ne ko li nga wax amut wala li nga wax ay du dëgg wala yi demee noonu ci ay baat yoo xam ne su ko déggee mu merloo ko loolu lépp na nga fexey ba moytandiku ko ndax bokkut ci ay teggin kon na nga fexey ba su nit waxee ci sa kanam loo xam ne lii de jàpp nga ne amut wala xam yow xamoo ci dara boo ko mënta dëggalal na nga na nga rafetal teggin ya ngay waxe ak moom ne ko ah man de nii laa ko jàppee bu fekkee ne xam nga ne ni mu ko waxee sax ak ni mu amee bokkut même boo koy wedde bul ko ne li nga wax amut wala juum nga waaye ne ko ah man de nii laa ko jàppee woon man de nii laa foogee woon mbir mi waaye bul wax mukk ay baat yoo xam ne daf koy merloo wala ay baat mukk yoo xam ne day jam ay ay ay ay ay ay yëg yëgwaayam wala ay baat yoo xam ne mën na koo merloo yooyu yëpp nit ki daf ko war a moytandiku ndax bokkut ci ay teggin kon nit ki ay teggin ci anam yu ne la ko war a sàmmonteel suy jëflanteeg ak mag ñi suy jëflanteeg ñu mu maaseel suy jëflanteeg ñi nga xam ne ñoo ko féete ndaw ñooñu ñëpp ku ci ne war naa am teggin yoo xam ne moom lay sàmmonte ci digganteem ak ñooñu waaye même li ci boppam sax moom dafa war a sàmmonte ay teggin ci digganteem ak jëmmam waaye war nay moytandiku bu baax lépp loo xam ne day waral yaraange ci digganteem ak boppam waaye ci digganteem ak ñi nga xam ne ñooy ñooy mbindeef yi kon xam naa dañuy tuub te jéggulu di wàcc foofu suñu kàddu di wax ni in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh